nous avons déggé avec rek président wax dund bi ci la réunir sentir ni lolu interpeller Nous ñu ni kon partitions. nañu apporter suñu partition suñu partition ci mbir mi mu doon joxé ay gratuitement ñu discuter des modalités c'est le lundi que nous avons dégg appel d'offre bi sommes étonnés Dakar Actu on est étonné de voir qu'on offre un service mais amna un appel d'offre mais le vendredi ils nous ont appelé pour nous dire que nous lan la ñu bëggoon bi ñu ba pas on est tombé d'accord sur une chose Nous ñu def gasoil bi jox chauffeur bi ration nous nous transportons gratuitement une destination un lieu wutuñu dara nous ñu yabal ci Sénégal dans fa dem. appel d'offres, offre bi nag ci responsabilité état l'État. ko mais dama jàpp le président Macky Sall il est le seul maître à bord am le couvre-feu am état d'urgence am na loi loi d'habilitation donc dafa waral que légui mu jël affaire bi en main xol ko saytu ko def ko ba buñ ci génnee la lu am ñun jàppoon nañ ñi di sax réquisition moy am ndax compte tenu de l'état de guerre bi déclaré contre le Covid 19. mais l'appel euh, appel d'offre est-ce que vous bi ak lan la lan lan mo ci nek bu doon teunk wa appel d'offre bobu man euh, li ma wax gars moy mooy ni def nañu ay demande de renseignement de prix parce que l'appel appel d'offre en réalité demande de renseignement de prix pour jël le plus offrant sous une autre forme parce que nous nous ARMP nous directement des loolu ils ont pris le moins ans, qui était celui qui euh, l'honorable député bon bi ko pris, mi sous-traité avec ay nit appel d'offre mais nous loolu lépp amuñ ci soxla nous fait doon milliards nous du tax kenn collectif bi jël fait na ngeen ma fay li wax mbay certifié Amna ci ñom ñoo xamni ne sollicité won nañu pour ay appel d'offre ak pour ay marché lañu lank parce que nak japp nañu ni fiñu ñu toll di xalaat xaalis bokul ci li doomu adama war def ca ñi ñi nara yobul yóbbul lu mu neew neew neew ak ñun luñu ñak ñak ñoo leen tare ca xeyna ñom localité ya ñu nekk amu fa ku taxaw ku leen mëna dimbali comme ni ñu moo ñu ni ñun nañ ci def sul auto man nak suma ma président xam lu may def man waxuma état de guerre ñom ñoo ni état de guerre l'heure est grave état d'urgence loi d'habilitation na réquisitionné auto yi yaakaar naa ni fukki fan ak juróom yi ñu liggéey kooku du rey kenn képp koo xam ne kii nag jàpp nga ni bu la lii rëccee doo doo am dara jàppal ni yow yàlla séddu la woon wërsëg man li ma wax lu clair la ca defe naa wax naa ko ci rajo yëpp dama ni la CATRS moo initié affaire bi parce que mais dama ni c'est le combat du secteur parce que nag on a cinquante coups de cloche qui retentissent dans notre secteur chacun veut porter le libéralisme moo tax ñun leen bu leen jaar ci bunt bi dem leen seeti le DAGE du ministère monsieur Sow ngeen jox ko seen ay oto ñun on cherche pas a tirer la couverture sur nous c'est une initiative qu'on a lancée citoyen bu ci gis sa bopp ñëwal bul jaar ci ñun xam nga doole kenn rek ko amuy subhanahu wa taala ñoom ñi nekk ci état bi tey am na ñu leen fi jiitu woon ñooñu tey mënuñu dara ñoom ñii danañu dem ëllëg ba kenn du fi dem ñun ci yàlla la ñu wéeru moo ñu kàttanal 82 oto ngi fi ci suba ak léegi bu sooxee rek ci ñoom lay doon ñun japp nañ ni ku wéeru ci Yalla ñako lolé kuy def fi sébili lay ñàkkoo doole ku ñu jémal a nawal doole boo saagantul yow moom la sa bànqaas di fàcc ndax ñun ci gannaaw suñu borom lañu ñu ca man lay liñ ma ci dénk borom Touba Mbacké mi sama yaakar adina ak àllaaxira la ko dénk maak loola ñu ngi ci jibam ku ca munta ag na nga lu moytu xalaatu ñu mënu ñi décourager personne n'est plus sénégalais que nous et nous n'avons de leçon de patriotisme à recevoir de qui que ce soit suñu ay responsabilité danañ ko jël ba mu mat sëkk fukki organisation la mais amna na benn bu ñëwul yéen nak ay organ ay journalistes ngeen def ngeen investigation bi da ngeen xam waaye man du man maay wax naan kii ñëwul ak kii ñëwul y a eu une voix discordante dégg naa autorité buy wax loolu waaye ñun loolu ba mu amee ca saasa ca saal ba lañ ko recadré ca yàllaa tax may wax la veille wax naa ko sama mag mbay mbeng ne ko danaa am une voix discordante mais je prendrai toutes mes responsabilités et dans la salle j'ai recadré euh, cette organisation le directeur de route, monsieur Camara a brandi le communiqué de presse qu'on avait fait et c'est ce qui était en phase avec l'Union Nous restons droits dans notre balle. Personne ne peut nous distraire. On m'attaque de partout, mais personne ne peut nous distraire. Nous ne verserons pas dans la polémique. Nous sommes dans le domaine du réel. Nous ne versons pas aussi dans l'imaginaire ou dans, la science-fiction. Je Sénégalais. boum Si qui du développement communautaire moom mu jël ko ñun wutuñu ci dara loolu payu yàlla ay taalibe sëñ Tuubaa lañu